Nijaay tey moom damay seetaan match bi moom waaw waaw ndam rek tous derrière l'Union de la Teranga. Dumbe terewuma la nga seetaan waaye ngir yàlla na nga tëj sa làmmiñ ma ma xool classement bi mbele mbele coow la. hey mais Aliou Cissé classement bi mu teg bi passé la tegaat yow kii lu ko dal pourquoi nga tegaat Bamba Dieng si banc bi mais banc bi riche tey de. Ismaïla Sarr sax si baa la dama lay coob yow Sadio dem de waaw waaw coup franc arbitre coup franc pod la ko teg waaw waaw Sadio tey sa bés la de sala sànq dugal na moo nijaay kii tule na penalty bi ci kaw de mooy yow kii añ na bal bi mooy mu tudd Dumbe noppil du penalty coup la yaa ngi may déconcentré tëjal sa làmmiñ demal togg sa reer bi aca jugal fii حط الكرة عن طريق ساديو ساديو خطيرة وجول والهدف الأول الترنج واو بي دقلو ساديو دقلو جيدي بروفندر جيدي نيحكو جيدي تقطان نكاي premier poto la ko def ci pokotanu goal bi les gars jaxagul de deuxième bi lañu bëgg maanaam dama tina de ñoqali na oh, mais gars yi waa Guinée Ecocho sonn nañu de dem leen seen kaw yéen a ngi seetaan de waa doo leen marqué kii yow. waaye dinañ égaliser kay ngeen mel ni ay estati. tey dugg na deuxième bi Cheikhou Kouyaté kuyaate le li gàmmu orang sobe borom ñaari jabar yi yàlla nga am ñetteel takut Seexu yàlla nga takk troisième femme troisième bi Ismaïla Sarr cokotaan na gaa yi du nit gaa di kii ko def fin du Aliou Cissé nit yow bu kan bi di jeex Real Madrid wala Barça di la jënd gars yi ba demi-finale yi ñu coqotaan waa Burkina bégé oh, waaw seetaan nga ba pare déet déet déet bul dal foo jëm capal fii capal fii bësal bouton bu xonk bi nga abonné bu ko defee vidéo bu bees bu njëkk a génn nga bokk si ñu ko yow ya, tamit je vous aime I love you